ci magam waaw foofu laa waroon a njëkkee sax Père Balla Gaye ñu ngi koy jaare àdduna bi yëpp yàlla yërëm ko te xaare ko àjjana monument la ndax li mu defar tey bu ñu nee école de lutte moom moo ko njëkk def ci àdduna bi ci Sénégal mm-hmm. léegi. mu formé lu mel ni ambassadeur loo xam ne day dimbali jàng muy Balla ngay 2 te ku defal ku mel ni Balla Gaye defal nga Sénégal ndax mi ngi def social mi ngi defal àdduna mi ngi jàppale nit ñi mi ngi jàppale jeunesse bi ku toog na Balla Gaye xol bu rafet te loolu yëpp Balla Gaye bi muy dugg ci làmb xale la paa bi moo ko tette ba fii. Hmm. tey dañ koy ñaanal rek yàlla xaare ko àjjana te yéexi ay saraxam yàgg ci loxo yi njabootam yëpp. message may lancé Balla Gaye mooy mu uufaat njaboot gi. Hmm. leen. xam ni moom moo fi ne bu heure entraînement jotee mu jóg dem entraîner bu heure toog ci kër gi jotee mu toog ci kër gi bu heure conseil jotee mu dem conseil xale yi bu xale yi di bëri mu ëmb leen mu uuf leen ndax loolu la Balla Gaye dee def téye ci loxoom ndax moom rek a ko mën a téye fu mu nekk nii moom rek ko mën a engagé te dina ko def ndax xolam rafet na te bëggoon na paa bi trop. li père Balla def ci moom daal mu def ko ci xale yi fexe ko. te dina ko ci def